ginnaaw bu bu ñu jàllee ci ñaan ba noppi nag mel ni tomb bi nga xam ne moom la ñu taamu tey mooy sëriñ tuuba ak ndaw ñi sëriñ tuuba ak ndaw ñi mu mel ni tomb la bu ñëw ci jamonoom bu yitteelit yàlla na ko ndaw ñi dégg ndax sëriñ tuuba ndaw da ko yitteel lool ba mu taalif benn téere ba mu tuddee téere gone yi ak téere ndaw ñi ñun nag diggante gone ak ndaw dañ leen di jaawale te bokkuñu war am na téere bu mu tuddee tasawudu sigaar mu téere boo xam ne yóbbalu gone yi la am bu mu tuddee tasawudu subbaan muy téere bu mu tuddee yóbbalu ndaw ñi la xam am nag jege tuuti ndax bu ñu nee ndaw moom la ñuy tuddee ab jeunesse borom xam-xam yi nat ci wàllu xamtu xam-xamu nit dañuy wax ne li déparé fukki at ak juróom ñett la ba ci juróom fukki at ak juróom ci lañ xayma euh, li ñuy tuddee nit ñi nga xam ne ay ndaw lañ bu dee gone nag mooy ki nga xam ne bi mu ganee àddina ba xàmmee euh, diggante bi muy dund te ñu war koo tàggat ak a toqi kooku moom tudd gone benn bu nekk ci moroom ji nag day am ak jeexit ci moroom ji bu ne fu mu toll rek daa am jeexit moo tax waxtaan lay doon woo xam ne dañ ci dañ ciy tënk rek li ñu waxtu yu may ne mënees na cee yandu te duñ ci surtout surtout Sénégal nga xam ne ñoom dañoo am problème mu ndaw Sénégal dañoo commencé am problème bu mag mooy dañoo am problème ay ndaw ndaw ñi dañ leen a drapé bu yàgg te yëguñu ko am na ci ñoo xam ne ñi ngi soobu sax ci ay tariixa di woote woo ay kër waaye boo demee ca kër googa nam nam doon yare ay ndawam di leen ko toqee ndaw ña jaaruñ ca yoon woo jegewuñ ko sax mm-hmm. te la ci gën a garaaw nag dañoo sëgg ca loola am ay mag yu dend ak ñoom di leen jëfandikoo di leen encouragé ca loola te fekk loolu wérut mm-hmm. loolu mooy yi ñuy tudd ay ay ak daanu kateeg yooyu yëpp foofu rek lay dugg du la du dara ay caaxaan la rek su ko defee nag suñu bëggee ubbi waxtaane ndaw ñi ci Serigne Touba position bi mu ci am faw nga dellu tuuti nag reculer donte duñ jaaraat ci histoire bi waaye ku ne xam na ne ginnaaw guerre mondiale àdduna bi ñu saytu woon jamono bi ci jamono boobu tëralin yi ñu tëraloon pour programmer ko ne ni la addina bi war a doxe dañ caa suuraale lool ay ndaw maanaam dañ caa suuraale lool wàllu éducation maanaam fexe ba am benn xeetu nit boo xam ne moom lañ soxla bo xamne ne liñ bëgg tëral ni programme nit ñooñu ñoo leen koy jàllaleel dañuy fàttali ne ginnaaw bi révolution france bi amee ba léegi ndax révolution france kenn mënut a tudd sëriñ Touba ci doxinam te tuddoo loolu ginnaaw bi mu amee ñoom dañoo am xalaat bu baax ci nañ séparé diggante diine ni diine di doxe ak ni adina di doxe muy état na ber yoonu boppam diine beru diine moom na yam ca jàkka ya rek mag ña di ko pratiquer gàddu kurus ya boot loxo ya dem ca jàkka ja na yem foofu waaye diine moom bu ko kenn indi ci nit ñi dunde àdduna bi moo te loolu moo doon lay laïcité bi nga xam ne moo gën a simple neexut a wax nag moo moo tax booy booy tudd Sëriñ Tuubaa foog mu metti ndax lu tax mooy laïcité bi gën a simple mooy boobu mooy nañ séparé diine mu yem ca jàkka ja euh, état dox doxinu boppam beru maanaam adduna bi ni ñu koy gérer ñu ber ko te fekk diine moo ñëw pour loolu boobu mooy bi gën a simple am na beneen bu gën a extrême boo xamante ne moo gën a dal moom gën a metti mooy lan ginnaaw bi leen séparé ba pare nag diine mais nañ ngëlbatiku mabbu ko mu jóge fi complètement diine mais tegawoon fee nga xam ne moo doon leroo ak euh, état diine di dox ci wàllu spirituel ñu ne diine moomee moom bee di dox ci wàllu temporel ñu ne déedéet diine mais moom dafiy jóge daa di koy tegal nag ay cellules yu mag ànd ci kuréel yoo xamante ne ñoo jiitu lislaam lu mel ne kuréelu franc-maçon yi nga xam ne bi ñuy xew ak bi lislaam di xew juróomi téeméeri at yeeg nangam tegal na di ay kuréel yoo xamante ne soppiku nañ tudd nu ne waaye tur yi du yitteel lislaam lislaam li ko yitteel mooy contenu bi mooy li tur wi mu làmb lan la boo xoolee sëriñ bi bi muy jàkkaarloog tubaab bi ci façon boobu it xamutoon tur yi moom xamul tur lim xam mooy lii lu mu doon ndax àdduna ñaara fi dox lëndëm ak leer lu noppee doon leer gi rek lëndëm la lay considéré wenn tur woowu la lay jox lim lay jox mooy da lay jox turu lëndëm nga noo mën a soppee saw tur na couleur ko ngir mën a dëppoo jamono ba ngay dund ndax tey ñi ngi coow ñun affaire franc soo xam nañ organisation yu bare bare bare yoo xamante ne ci ñoom lañ wéeru benn xalaat bi lañ yor te mooy fexe ba jële fi lislaam amul leneen ndax ñoom seen seen seen noon bi gën a mag tey moy l'islam na fi jog buñ ko fi jëlé du caageen dañuy jog né dañuy ray julit yi wa dédé dañuy fexé ba julit yi dootuñ ko pratiquer manam ab julit day taxaw fi di bako julit la di di def ñom lay seen bëkk ñom loolu ci lañuy liggéey loolu nak mo waral liggéey bu mag bobu ni muy jéxétalé ci ndaw ñi ta ndaw ñi it jéemu ñoo jël référence fañ ko wara a mo jur drapage yu mag yi di am sëriñ bi nak kon ku tuddu ndaw ñi da nga tuddu xeex bu metti ta loolu dana dil si ci ay mbindam lum ci xóotale ndax ku ne xam na ne boo liiree ilhamu salaam damay wax ne murid yi néew na lool luñ koy liir man de mësuma dégg benn jàngkat bu toog di daaj ilhamu Salam. te ilhamu Salam concerné ñu lool ndax bi ko sëriñ tubaa di wax ndaw la bokk na sax ci li tax tubaab yi commencé sip soupçonné parce que dafa jógoon di leeral askanu sénégal kan mooy ñii tey ñii jóg di ñu coloniser ñooy ñan mu tëgg ci lu ëpp juróom benn fukki way ak lu topp yoo xamante ne da doon leeral askan wi ñan ñooy ñii ak fan lañ ñu jëme waaye xasida boobu fi mu ne dañ koo nëbbu te wallaahi na ko Sëriñ doon binde boo ko boo ko wayoon fii génne ko teg ko ci tele bi ñu way ko bu fekkee xamuñ ne mbindum sëriñ bi yow moom dañ lay jàpp ne dangay kañ ak terrorisme moom na mu ko na mu ko doon leerale su doon ci jamono bii la nga génne ko te xamuñ ne mbindum sëriñ Touba la yow dañ lay jàpp ne la da ngay kañ ak terrorisme parce que lu tax dafa xam le ne ñun dañoo war a jóg waxuñu yam ci jéem leen a moytu mais dañ leen a war a entravé dañ leen war a gàllankoor ba duñ jàll xasida ga yit mu leeral ca lu bare bare bare bare xasida googu ndax lu tax taalibe yi jàngaluñ leen ko loolu problème la loolu problème bu mag a mag mag la lu tax xasida googu génnuñ ko weer ko ci ni ñu weere xasida yépp pourtant mi ngi ci marché bi de boo amee 200 francs ñu jox la xasida bi ñépp dégg nañu arab waaye xasida gi la nit ñi yëbut ndax lu tax jikko yamu yamu jikkoy lislaam yu mat yi muy incarné ci la nit ñi jëmatut nit ñi léegi liñ bëgg kiñ kontaan ci yow mooy ku leen di nax ku leen dikk di leen yombalal àjjana bañ mel ne dañuy jóg rek dem dugg yooyu lañ soxla moo tax fi mu ne nii dëgg yooyu mu wax dañ koy nelawal ñëw na génne caaxaan yeeg yuuxu yeeg dal yi mooy waral ñaari saa boo indi waxtaanu jub du neex waxtaanu njub soo ko indee du neex ndax lu tax euh, sëriñ Habibu Mbàkke euh, yàlla na ko yàlla yërëm da daan wax ne sëriñ Touba ñun buñ toogaan ak moom defe naa moom gudd fan lool ndax dund na ak sëñ Touba dund ak ñun ndaw ñi ndax man toog naa ay jotaayam ay yooni yooni yooni yooni yoon te te te moo jàngal sëñ Saalihu moo jàngal ñoom sëñ Sohaybu ñëpp moo leen jàngal xam-xam waaye da daan wax ne bu ñu xëyaan ci sëriñ Touba dem toog ak moom jotaay bu fekkee waxtu wa waxtu suba la bu buñ jógee ba dem kenn du añ ndax ñun ñëpp dañuy tiit dañuy yëgaat ne ñun defaluñ defuñ dara kenn ku ne ngay góorgóorlu ngir jéema def lu baax lu la rëccal nee na bu dee waxtu ngoon lay kenn du reer mais tey nag dañuy toog ci benn jotaay ñu waxtaane fa Sëriñ Tuubaa ba mu jeex ñu tàppante ñun ñëpp xaxaloore mu jeex mu mel ne benn benn waay la boo xam ne daal dafay ñëw rek pour di théâtral gars yi sëriñ bi loolu it jur na nag nit ñi màndeetuñ nit ñi xam nga lan la nopp yi lañuy ñuy màndal mais ruu yi moom màndeetut ruu yooyu màndiwut nag moo jur tey ba tey gàllankoor bii dal senees bi nga xam ne tey li ñuy puukare woo mooy nuru nuru lu ka nga xam ne bokkuñuy pas-pas yi diine waaye image bi mu image bi muy titré rek ñoom nañ jël boobu image porté ko di ko di ko di ko puukare woo ci kaw mbedd yi mbokk yi kon tey bu ñu bëggee waxtaanee as as subbaan muy euh, senes ak Serigne Touba dana yomb waxtaane dana yomb waxtaane ci ñaar ci moom moom bi mu jógee di taxaw ñu bàyyi xel Serigne bi bi muy woote 32 ans la am waaw 32 ans la am kon loolu da nga yëg ne ndaw la te ñi ko toppoon li ëpp ca moom moo leen mag kon loolu li muy tekki mooy da nga yëg ne ndaw ndaw moo doon dem. xasidaam yi ngeen di dégg yépp bi mu koy bind yi ci ëpp yi aju ci xam-xam vingt-deux ans ba bi ngay egg ba muy egsi ci vingt-huit ans téere bi ñu ci gën a yab muy masaalikul jinaan mi ngi ci diggante vingt-deux ans ba vingt-cinq ans te téere boobu rek xam la na ci xam la na ci kan mooy nit ñaar yi nga xam ne ci la nit di jaaree bëgg am complexe bëgg bëgg nekk ku complexe te complexe bi day doon sax inférieur téere boobu da ko cee leeral ñaar yi yan la benn bi mooy ngay xool nit ki ci wàllu euh, cosaan ab der bu ñaareel bi mooy ngay ngay naan moo ma jiitu ci nàngam dépassé na ma ñaar yooyu yépp leeral na ko ci téere boobu bokk na ci mu wax ne fala tuqassis rab rabbin qad ala bisi taqaddumin faqat fa tajhala fa tallu qad yabdu amaama alwabli walfadlu lil waabili laa li xolal way ji ni mu leere mu ne na ngeen moy di am complexe ci ñi fi jitu won kenn ku ne ci sa jamono ya koy seereel sa bop mu ne bul masa jël ngëneeli yalla ne ñi fi jitu ñoko jël raw nañ dem mu ne lool bu ko masa gëm wala tuqassis bul jagale fadlu rabbi ngëneelul yalla mi nga xamne ne xan xalaa bi si taqaddumin ci ñi jitu won ñu ne ko boko defé mu ne isan fatajhala soko defé rek ku reer nga ñu ne ko lutax mu ne taw mësëy mësëy ñi nekk ci àll yi xam nañ lan mooy mësëy taw buy ñebb ñebbal waaw nee na mooy mooy day day wàcc ndànk waaye waami moo cay topp mu ne muy laaj nag ngëneel li fu mu ne mu ne ngëneel li ci waamee le la ne waaye newul ci mësay bi mu ne mësay bee jiitu mais ngëneel li mi ngi ci bi mujj mu ne kon fexeel ba yow boo mujjee nga marqué sa jamono ba rusloo ñu jàll dafa mel ne boobu gaa yi déglooguñ ko sëriñ bi nee na yow boo ñëwee jamono bi nga tollool fexee la marke sa jamono ba rusloo ñu jàll kon foofu teel naa wan nit ki mu jéem a am Euh, fulla ci jéem a dem beneen bi mu waxaat it ne na nga moytu der bu ñuul bi nga amee der bu ñuul ndax foofu loola loola tëral walay sa yujibu sawaadul jismi safahatul fata wasu suu al fahmi nee na ñuulaayu yaram wërta waral mukk nga nekk ku doyadi ci xel wala nga doon ko manqué compréhension nee na ñuulaayu yaram wërta yóbbe nit loolu kon mu mel ni leeral nañu ne li ñuy suñu suñu der bu ñuul bi ñu yor dañ ko war a jël mu doon opportunité bi nga xam ne ci lañuy sukkandiku ngir mën a tiim keneen ku dul ñun defe naa loolu sëriñ bi bi muy wax lii mi ngi ci ñaar fukki atam ak ñaar te boo demee ci téere boobu mi ngi ko tënk ci junniy way ak juróom benn téeméer ak lu topp te ku ne xam ku xam arab ku xam arab xam ni arab bindoo xam nga ne booy toll ci ñaar fukki at ak ñaar da ngaa toll ci di ndax arab arab mm, bokkut ak comme yeneen làkk yi kon bu demee ba ci bind téere yu toll noonu ta ba léegi jamono corrigé gu ko loolu am na question yu ñu war a laaj foofu su ko defee it nga seetlu nag moom ci côté ndaw it ko bàyyee xel ba bindal ko téere bu ñuy gi tasawudu siraar muy fan gi bu xësee ba am juróom-ñaari at bu amee fukki at ak ñeent diggante boobu la imam ali da daan wax karamallahu wajha da daan wax ne juróom-ñaari ati gone yu njëkk def ko buur del dox ci li neex li neex noppal yeneen juróom-ñaari at ya ca topp nag nanga ko def baadoola na nga ko sonal na nga ko bunduxataal ndax foofu fag ngay tabaxee ak addinam mu ne yeneen juróom-ñaar at ya ca topp nag na nga ko def mu nekk sa wasiir maanaam na nekk sa consultant de booy def benn xalaat dee ko ci laaj di ko jéem a dugal ci biir société bi muy joxe xalaatam di gëm boppam ñetti juróom-ñaar yi la séddalee ndaw boo ko xoolee dafay daf ko yóbbu ci vingt 21 ans mu mën a yenu ay responsabilités magum jëmm moo xamante ne as bi mu toll kenn xamul ba léegi ñu ne ko ndaw maanaam di ko di ko jaawaleel diggante ndaw ak gone muy def yëfi gone waxuma muy def yëfi ndaw de muy def yëfi gone muy def yëfi gone te nag li gën a yaafus mooy mag muy dawal mbege waaw waaw mag muy dawal mbege day xaw a yaafus te loolu mooy mooy li may wax da gis koo xamante dañ koy tuddee ndaw nga fiiri luñ ko lan mooy ndaw ndeke baatum ndaw li muy tekki mooy yaa ngi toll ci bokk ci génération bi war a tabax seen réew fii nga toll nii ñi jëm si ci sa kanam ñépp ci li ngay doxal ci la ñuy sof si kon nag xoolal li ngay def loolu mooy ndaw bokkut ak ngone kon loolu yi foog ñu leeral ko foog ñu leeral ne ndaw du gone Serigne Touba dafa bu ñuy wax ñun téeréem ndaw ñi rek ñu bari téer tasawudu zixaar la ñuy jam tasawudu zixaar téeréb gone yi la dendale na ko beneen téere bu ñu tuddee tasawudu subaan téeréb ndaw ñi lu am solo ndaw ci wolof li muy firi mooy waxambaane waa ah, wolof boobu lay jëfandikoo ci ndaw mooy waxambaane buñ nee nag gone nag mooy ki nga xam ne moom dañoo toll ci di ko laddanti di ko di ko di ko di ko toqi ak yu demee noonu léegi kon nañ tàmbulee ci gone ni ko Serigne Touba doon toqee sëriñ Touba mësta may ndaw dara lii firnde ji mooy moom daa wax ne fo fo fo mi nga xam ne tubaab yi dañ ñoo gën gëmal ñoom ñuy jàng ci wàllu scientifique ne mënta ñàkk ci dundu gone gaa mënu cee ñàkk waaye gis nga ruu ni muy yëge ni muy yëge la koy fiixal rek mooy la muy fawe sëriñ bi am na bis mu woo mag ñi ne damaa bëgg tey ku ma jàngal xasiida mag ñëw dugg toog am na genn gone gu goo xam ne daanaka bu rombee juróom-ñaari at ci lay yem nekk ci biir mag ñi ñëw ne suuti rek mu xaqataay ree xam naa dañ doon waxi waxi suuf comme ni ko gone yi defee sëriñ bi daal waaw maa leen woowande waaye bàyyi leen ko daal ndax man moom samay mbir fodda cee bokkut kon tàmbali na beneen am na ku mas a ñëw indi doomam ju mokkal alxuraan pour nga gis ni mu fo ni mu fonke yar nes tuuti li ci kanamu sëriñ bi sëriñ bi di ko xool ba xam dana wax alhamdulilah yu demee noonu gone gi ne ceel rek sëriñ bi jékki-jékki ne ko waxal dara daan na gone gi waxal dara gone gi xamul lu muy wax mu ne ko waat waxal dara gone gi xamul lu muy wax mu ne gees way jur wi ne ko ah alquran bi de mom leeruguma way yar bi de dess na lol da ne ko ta ta ta yar akum jang luy manki bu ci yar bokk mhm. loolu daal di wax ne yalla xam nañ ko yit ci domam xayna du jar tuddu way xam nañ domam joj ci aw togin day tari alquran dako wo muy tari alquran ci nim toge rek wëlbatiku wëlbatiku bu bari bi muy def serigne bi ne ko demal ne ko dess na amna lu dess ci jang bi te ci serigne bala doon ne ko amna lu dess bi mu dikkee sëriñ bi xool xool xamul lu war a des ndax gone gi mokkal na mu ne gone gi taril gone gi continuer di tari ba yàgg ni muy toogee di juut juuti ñàkk di wëlbati ko wëlbati ko waat mu ne ko sëñ bi lii lay wax boo demee da nga bul defati lii ba mu demee toog de ne dégg ba tari ba mu jeex sëriñ bi daan ne ko waaw boo demee nekk ko yépp mat na nga gis ne kon toogin wi sax toogin wi sax da koy contrôler ci gone gi ba du nu ko neex lay lay lay dunde ci tooginam kon loolu it tey ci maa ngi ci gone gi ni muy yare gone gi bokku na ci bu daan yar gone it da leen daan saytu ba ci aw ba ci aw lekin manam xaw leen tek ci genn ranke gu yam xaw nga ñu ngay deg ñaan sama dom lu wurtu manki dara ki mënagul manki dara bis bu mané manki dara day jëfëndiko violence pour am la manki bo gisé ñu naan nit ki mu jaar ci tumuranke lolu ab ab idée la bu ñu tegal rek waye wérut nit ki liñu wara def moy dañu wara fexé ba yi nga xamantene ay ay moyen la ñu di ko ñu mu koy gis ba noppi ñu koy soraleeg moom wan ko ne yaay dox jëli ko waaye du moom moo lay wut si moo tax bu ñu xoolee sëriñ bi loolu doon na ko dund ak ñoom sëriñ Fallou sëriñ Fallou nee na diirub li ñuy nekk ak moom ca benn bu bu bu bu añ jotee day jël kubéeru bidon yi vingt litres yi kubéer googu ci lay def cere ba mu fees sotti ci ndox jox leen ñu lekk boo lekkee ba noppi jël mi kubéer gi lay jël defaat ci ndox ba mu fees jox leen ñu naan ba heure bay dellusiwaat duñ lekkaat ci ci jamono boo xamante ne xar yaa ngi wàcc ñu ngi koy togg ci kër gi ñam yu neex yépp a ngi wàcc ci biir kër gi lépp a ngi am waaye moom da leen di jox benn tibub cere ñu boole kook